an yaxdaba lillaahi muy mer ngir yàlla mer ngir yàlla dafa war ab jullit rawatina ci waxtu woo xam ne dañoo xotti xormay lislaam dañoo xotti xorma yonent bi wala dañoo wax ci yàlla loo xam ne waxuwut su boobaa ab jullit dafa war a mer ndax mer yoonu yàlla tabaraka wa taala loolu mooy yàlla te loolu mooy sunna yonent yi wal gadabu lillahi azza wa jal sunnatu nabiyina alayhim salaatu wassalaam mer ngir yàlla tabaraka wa taala yoonu yonent yi fa haaza abul anbiya ibrahima xalil alayhi salaam daa qawmahu ila tawhidillahi taala fa nabada wa nabdi asnaam fa lamma lam yastajibu lahu gadaba lillahi taala fa xattama asnaamahum yonent yàlla ibrahima ngi nii woote jëme ci yoonu yàlla kennal yàlla mu woo ay nitam bàyyi jaamu xërëmi sànni leen ko ñu lànk bañ koo wuy si mu daa mer jël jaaseem daadi di daaneel seen xërëm ya mu mer jël jaaseem daaneel xërëm yi yàlla diñ ko nettali mu ne faraaga alayhim darban bil ibrahima jeng na jëm ca yàlla yi daa di leen di dóor ca loxo ndey jooram ba fa jaalahum juzazan illa kabiran lahum laallahum ilayhi yarjiun ibrahima tojete na yàlla yi def leen ay xaaj xaaj ba mu des yàlla ju mag ji mu daal di koy bàyyi ndax ñu xelu mën a dellu yàlla tàcciti ci yàlla tabaraka wa taala kon foofu jàng gi ñu fay jàng mooy ibrahima woote na jëme ci yàlla nit ñi lànk bañee wuyu si ibrahima mer kon ndeke mer dina dagan waaye lan moo tax ngay mer yow lu tax ngay mer am na ci ñoo xam ne lekk gi neexut am na ci ñoo xam ne yére bi setut am na ci ñoo xam ne dépasse bi matut am na ci ñoo xam ne jëndaloo ma nangam am na ci loo xam ne li nga ma waxoon defoo ko am na ci loo xam ne nit buy mer day mer ngir yàlla di mer di fuñi fuññi di guddal bakkan di loolu du yëfub jullit ab jullit suy mer na yàlla tax waaye mer ngir ay intérêt mer ngir sa bakkan mer ngir àdduna amul benn sens kuy mer na mer ngir yàlla sunu yonent ngi nii mu yonent yàlla Muusa alayhi salaam moom tamit mer na ngir yàlla tabaraka wa lan moo tax Ibrahima wer Muusa mer lamma alima anna qawmahu ittaxazul ijla ba mu yëgee ne mbokkam ya jàpp nañ xërëm di ko jaamu fa lamma raja Muusa ila qawmihi gadbaana asifa qaala bisa ma xalaftumuni min baadi ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaaha wa axaza bi raasi axiihi yajurruhu ilayhi qaala yabnu umma inna alqawma istadcafuuni wa kaaduu yaqtuluunani falaa tusmit biya al aada wala tajcalnii ma alqawmi alzaalimiin Musaa ñëw na fekk ay nitam ya ko yàlla yónni woon ñuy jaamu xërëm jaamu ab yëkk Musaa daa di mer yoroon nay àlliwe yi ko yàlla joxoon tawraat mu daal di koy sànni mu daal di poñe rakkam haaruna jàpp ci bopp bi jàpp ci sikkim bi xëcc ko mu ne ko doomu nday doomu ndey bul ma gaañ doomu ndey bul tax nit ñi reetaan ma ndax man kat nit ñee ma ëpp doole mënulu ma leen a mënuma leen a téye mënuma leen a tere jaamu yëkk bi moo tax ñu dem jaamu jaamu ji yëkk bi ndeysaan ay doomu ndey nit ma ëpp doole dañ maa loo doole xaw nañ ma rey sax waaye waaye bul tax ñu reetaan ma bul tax noonu reetaan ma waaye bul ma boole ci nit ñi nga xam ne ay tooñkat lañ kon gis ngeen yonent yàlla Ibrahima mer na yonent yàlla Moussa mer na sunu borom subhanahu wa messal ñu won ñu histoire banu Israil ak Moussa lan moo taxoon Moussa mer mu ne wa jaawaz naa bani Israil al bahra fa ataw ala ala qawmin yakifuuna ala asnaamin lahum qaalu ya muusa ij'al lana ilahan kama lahum aliha fa xadiba muusa banu israil ak teranga gi leen yàlla deral yàlla labal seen noon traversé leen géej gi ñu waroon sant yàlla bi ñu rombee géej gi ñu fekk ay nit di jaamu ab yëkk ñu ne muusa defal ñu yàlla bu mel nii ñu fàtte yàlla Moussa mer allahu akbar gis nga lépp dañuy jàng ne ab jullit li tax mu war a mer lan moo tax ab jullit war a mer lu tax góor wara a mer ci biir këram lan moo tax jigéen war a mer ci biir néegam lan moo tax doom war a mere ndeyam euh, wala wala wala lu tax nit war a mer ñun tey li ëpp ci li ñuy mer suñuy bànneexi bakkan suñuy intérêt suñuy bëgg-bëgg kenn ci ñun du mer ngir yàlla ak néew ci ñun ñuy mer ngir yàlla dangay ngay nekk ak sa soxna du julli doo mer nga nekk ak sa borom kër du julli doo mer. nga nekk ak say doom du ñu julli doomer waaye boo ñëwee fekk yére yi wala reer bi guddee wala añ bi tardé wala xaalis bi nangam wala wala rek nga commencé mer <laughs> waaye yàlla moom jaralu la mer tey jii ci ja àdduna bi ñuy dund yonent baa ngi nii ñuy jalti jalte lislaam a ngi nii kenn ci ñun duñu mer du mer lu tax parce que lislaam gënalu jaraluñu dara mbokk jullit yi kon bokk na ci li war mu kàllaf muy mer ngir yàlla sunu yonente alayhi salaatu wa mu ngi nii moom tamit joxe na misaal bu rëy rëy rëy ci mer ngir yàlla joxe na misaal fil xadabi lillahi taala fi mawaqif kathira yonent bi joxe na ay misaal ci ay barab yu bëree bëree bëree bëri yoo xamante ne wane na fa meram ay moo ñu koy nettali mu ne maa xuyira rasul sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayni illa axaza aysarahuma maa lam yakun isman yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla tànn loowu ko ay mbir lu dul jël na ba ko gën a yomb ba nga xam ne bàkkaar nekku ci ba gën a yomb boo xam ne amul bàkkaar moom lay tànnal nit ñi indil leen fa in kaana isman kaana ab adunnaasa min bu fekkee bàkkaar la moom mooy ki ko gën a sori nit ñi waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam wa man taqama rasul sallallahu alayhi wa sallam li nafsihi illaa tankahat hurmatullah illaa tuntahakat hurmatullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam mustamer lu dul ñu xotti xorma yàlla tabaraka wa taala xormatullahi azza wa jal yi ñu xottee xorma yàlla rek yonent bi alayhi salaatu wasalaam kanam nga changé na yonent bi mer na kon li ñuy jàng mooy ab julit wax dëgg yàlla war naa mën a xeex ak bakkanam di mer ngir yàlla waaw wa yaxdaba lillahi mer ngir yàlla laa ilaha illallah ak néew tey ci ñun mer rek ngir seytaan mer ngir àdduna mer ngir bànneexi bakkan mer ngir nangam mer ngir say mbok mer ngir say dëkkandoo mer ngir say xarit waaye mer ngir yàlla déedéet yow lu tax nga mer sama xarit bi nangam lañ def nangam moo tax ma mer te noo mer ngir yàlla teenoo mer ngir lislaam teenoo mer ngir sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mi àdduna bi fang tey ne dañuy fay leer gi donte ne munuñ ci dara waaye mbokk jullit yi yaay Aysa ba tey mu ngi nettali suñu yonent alayhi salaatu wasalaam ci place yu baree bari xam ngeen ne keroog ba mu ne dañuy dagg loxo sàcc bu jigéen ba am ku ñëw ne damay ñaan si njekk ndax jigéen ji daa bokk ci yax bu rëy kennoog yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mer ba gi xonq mu ne adunaa ngi tukki adunaa ngi tukki gaañaa ngi ñaan njekk ci déeli yàlla yi xanaa xamu leen fatimatu bintu muhammadin bu sàccoon muhammad dagg loxoom laa ilaha illallah kii moo maandu kii moo ragal yàlla kii la yàlla yónni pour mu orienter xeet wi pour ñu xam fu ñuy teg suñu tànk waaye ñun suñuy bànneexi bakkan topp àdduna di mer ngir àdduna di mer ngir bànneexi bakkan di mer ngir alalu àdduna di mer ngir ay matériel di mer ngir nangam waaye doo mer ngir yàlla yal na nu yàlla taxawu yal nu yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp ko mbokk yi jot nañu xoolaat sunu bopp ñoo ngi jéggalu kàddu yi in aratu illa al islaha mastataatu wa ma illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh